ab dof la woon dof bi nag daa tëddoon ci suufu garab mu tëddee ci suufu garab bi jékki-jékki daal di ci kaw garab gi mu ci kaw garab jékki-jékki rek daal di daanu bi mu daanu mu jóg eh, si maa am sens su ma tëddoon ci suufu garab gi sama kaw laay daanu. benn maçon la woon maçon bi xëy bi mu xëy bi xëyee nag ci ma ngi yéeg ci ay.

ak i taalibeem Sëriñ Ngounda Ndiaye nag dafa commandé ay ginaar soxna si dikk ko toggal mu toll ci juróomi ganaar bi waxtu timis jotee nag ñu julli ba noppi daal di toog nag di waxtaan di xaaraale gee moom ak taalibe yi bi ñuy waxtaan di waxtaan ba ci yàgg ñu noddu gee fi ñuy noddoo gee rek soxna si itam daldi indi reer bi mu nekk juróomi ganaar ñu defal ko ba mu jekk daal di koy tëj ci bool teg bi loolu amee nag léegi nag ganaar yi ñëw na teew julli ji itam teew na waxtu yi teew na taalibe ne ah tee ñoo reer soog a julli comme que reer bi ñëw na sëriñ bi daal ne mukk mukk daal ne julli moom bu taxawee lépp lu ñu doon def nañ ko bàyyi rek te julli ndax julli mooy farata ji ñu ne ah kon baax na comme que sëriñ bi wax na nañ julli bala ñuy reer ñu kàbbar nag di julli bi ñuy julli benn rakkaan muus mi jógee fële ñëw fël bool bi yëkkati genn ganaar yanu dem sëriñ baa ngi naan hum de waaye nag muus mi faalewu ko muus mi bi mu demee nes tuuti sëriñ bi toll ci ñaareelu ràkka bi muus mi ñëwaat fëkkaat bool bi yanuwaat geneen ginaar yóbbu mu des ñetti ginaar sëriñ bi naan hum hum hum muus mi faale wu ko muus mi ba mu demaatee ñëw fekk sëñ bi toll ci ñetteelu rakan bi muy ñëw ànd ak yeneen ñaari muus ñuy ñett te ñetti ginaar des ci bool bi biñ demee bay waaj a agsi benn benn ndongo daal di walanteeru nag dagg julli gi ndax muus mi jël bool bi aj ko ca kaw ñëwaat tàmbali julli boppam moom bi sëriñ bi sëlmalee di def ay verre de taalibe yi itam sëlmal daan ne ko sëriñ bi ba yàquma julli gi mu ne ko yow mii yaa defar julli gi nag bu doon yow bu du toon yowaat julli waaw lii it lu bees tàq la muy kaay lépp kaay lépp la du koy tàmbali ci scène bi nee leen kàddu o muy première scène 100 pour cent dessin animé au Sénégal waaw scène bi moom Mickey rek kaf rey moo ko tax a jóg waaw léegi numéro téléphone bi ngeen di jël whatsapp la képp ko am sa lépp boo xam ni saa yoo xalaatee ree ba tëdd si suuf lépp bi bu ko jënte yow kese partagé ko ñun ñëpp ñi bokk si waaw vocal ko waaw vocal ko vocal bu set bu leer ñun nit ñi partagé ko ñun ñëpp ñu tëddandoo suuf ree rek ba xalangu